sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha asalaamaaleykum wa wa barakaatu yéen mbokk yéen ñi nga xam yéen a ngi ànd ci jataay yi nga xam si ne moom la ñuy am di ko waajale màggal gi nga xam ne mooy màggal gu muharram di bis bi nga xam ne ne Serigne Touba Xaadim Rasul jóge woon njaareem ñëw ci dëkkam bu sell bi te nag ñu am jataay bu am solo bu ne amal fii ci Daaru Xudoos di bis bi nga xam si ne moom la mu jaglaale maam Cheikh Ibrahima Fall mu mel ne fii suñ ginnaaw ay exposition ñoo ngi fi di ci jàngale dunduk maam Cheikh Ibrahima Fall ak ay jaar-jaaram ak ay taxawaayam ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu lislaam rawatina yoonu murit ñu ànd ak suñuy mbokki taalibe kon ci mel ne Serigne Modou Fall mi nga xam ne moom moo jiite daayira bi nga xam ne moo Jazbul Murid bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem sëti Cheikh Ibrahima Fall yi ànd ak Serigne Mamour Ndaw moom itam di kenn ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall mu mel ne ñooñu dañ fas yéene àndal lenn ci waxtaan kon dañuy njëkkee ci suñu wetu ndeyjoor rek jox Serigne moo Serigne Modou Fall mu wax ñu maam Cheikh ci ñëwam ci ak Serigne Touba ak bi mu Serigne Touba taxawaay bi nga xam ne la taxawee ci wetu Serigne Touba. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نيجي نيو دلنا زيارة باه بيجي دلك نيو بشيء محمد المنتهى ديكون يانال مياك في لول تاندغوير أكسرين سيا جم مفعل أن بولم جبرو سرين تباغ أن مام سيا إبراهيم مفعل بال مريدينا نون لني يانال سيا أحمد المختار مياك خمنة موجي تام بولم جبرو سرين مود مصا بكي مياك خمنة moy taw bi nga xamne mo ndek wutu cheikhul khadim tam liggeeyal ko liggey bu am solo bo xamne ni ñepp ñu ngi ci jaruñu yalla nañ ko yalla kon xam naa euh, ngir njëkkanteeg euh, waxtu wi ak xataay beeg ndax koo xam ne ak dundam lépp lu baax la ko defee yaakaar naa la ëpp ca moom mënoo koo xam rawatina ngay xam euh, la gën a néew ca moom mënoo koo xam waxuma laa ngay xam la ëpp ca moom waxuma laa lépp léppam kon kooku yaakaar naa luñ ci musale lu mu tuuti rek day doy muy Serigne Touba ak seex Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ñoom seenu gisee mi ngi woon ca Mbàkke Kajoor wax dañ ne 1301 la ci gaday gi am ñu ne 1302 bi sëñ Mor Anta Sali nelawee ba ca déwén sa ca woté ba señ Touba woté woon ala man kana sahibana li taalim fali yansuru li nafsihi wali yasab haysu sa wali yahwi li jinsihi wa man araada ma aradna falyazir bi zairina wal yaqum bi amrina lola bam xewé ca déwén sa wax na ne ci la Cheikh ibrahim Fall ñëw ca yoonu mourid ñëw ci mbacke kadior ci jébbalu ci señ Touba ba muy jébbalu ci señ Touba nak am na lu mu wax Serigne Touba am na lu ko Serigne Touba wax waaye xataay waxtu yi mooy tax te Serigne Bassirou nettali na ko ci minanu Baal Xadim ne xakka alaya muriduhul kabir Cheikh Ibrahima Fall murid bu ma wax ba ñu wax Cheikh Ibrahima Fall nettali na ma daana Cheikh Ibra mi ngi bokk ci jàmbaari Pastef yo ba xaw a mel ne sëriñam ba damaa wax ne ma li nga xam ne moom laa njëkk a jaayante ak Serigne Touba ci njëbbal dama ko wax ne ko dara ju dara taxumaa jógee sama kër lu dul sàkku sëriñ boo xam ne moo ma yeggale ci yàlla sëriñ boo xam ne sëriñ boobu nag danaa gis ci moom leeru dëgg goo xam ne dana dindi lëndëm mbindeef yi te ki manu yàlla mu deuguma yit di feeñ ci mom bu wér te man dal ku mel melo yi suma gisul won ci mom dara lu dul ab ab armeelam sama yéenu ju dëggu ci mom dana ma jotal lama ma bëgg daa di wax sëñ touba ne ko wa inni ubayyuka ala an la azza min dunya bi shahadat innama hamillah wa darul akhirah ma ngi jaayante ak yow ci aduna lu tol ne pep karaw bëgguma ko fi sama yitte moy yàlla ak kër gu mujj ga loolu la ak Sëriñ touba mi ngi xewoon ci Mbàkke kadior loolu la ko sëñ Musaa Ka wax ne ko ya njëkk jébbale sa xol fekkon nga gaayé xor-xoral ñalay taxal ñalay setal ya xal ngir mi ñi doxé bi mu jaayantee ak moom nag arab yi dañuy wax ne alxurru xurru maalam yi takallam nit ki na moo moom boppam fii ak waxut Seex Ibra Faal nag bi mu ñëwee jébbalu sëñ Touba kon moo moomoon boppam waaye nag jël na léppam jox ko sëñ kon moomatul dara kon bu ñu nee wax menn xel mooy Seex Ibrahima Fall moom sëñ Touba da koo jaral mu bàyyi lépp lépp loo jàpp ne loo jàpp ne lu baax rek Seex Ibrahima Fall bàyyi na ko jàpp sëñ Touba waaye sëñ Touba boole na ko lépp lu baax moo tax fu ñu tuddee sëñ Touba tekk Seex Ibrahima Fall baalu murid dina loolu du luñ réunion du duñ par loo du dara lu yàlla dogal la فين تود لا إله إلا الله تك محمد رسول الله فين تود سرين توبا فين تود محمد رسول الله تك سرين توبا كون نك فين تود سرين توبا تك شيخ إبراهيم فالله الله يالله دغال نك بق جيم بقون يرن تبي صلى الله عليه وسلم سيا الخديم مم نون لسيا إبراهيم فال بق سرين توبا نك سرين توبا دفعه هني مهات مهابتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي فداء له حبدا خديما له مسكان للسندا لول نك دفع دل إبراهيم فال باول مريدينا دفع بق سرين توبا ba yëmaliwu koog dara mu jur lum lum jur tuddee ko sëñ Touba lum am jox ko sëñ Touba sëñ Touba tamit noonu la dane woon dand yonente bi sallallahu alayhi wasallam lum jur tuddee ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam lum xam wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ne aka neexoon ma tëdd sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël tànkam bu tedd boobee teg ko sama teg ko ci sama lex bi kon loolu ak bëgg mënu koo paase sëñ Abdou Lahad nettali nañu fii ci Touba ne am na bis koo xam dafa indi gura ci indi fa gura Euh, bi ko sëriñ bi laajee lu mu ci jublu mu ne ko damaa jàpp ne bëgg nga ko mu ne luy guróon nañ ko xoo ci kër ñu génne ko kenn du ma askane lenn lu bëgg yàlla akub yonente bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ibrahima Fall nag noonu la meloon ci sëñ Touba mu jébbalu moom ca Mbàkke Kajoor mu wax moom la muy wax ak moom mu jëf fa jëf ju rëy joo xam ne nii adduna bépp teg nañ ci seen bët ba ñu ñëwee Mbàkke Bawal tamit ak la fa xew xam naa juróomi minute liñ ci war a tënk dafa bari waaye daal ñoom duñ ñaar kenn lañ comme ni ko sëñ Saliou daana waxee njaboot sëñ Touba gépp di waxee ne sëñ Touba Cheikh du ñaar kenn lañ dañoo bokk pas-pas ndax bi mu ko waxee jaayante gi sëñ Touba loolu la ko waxaat moom waaye xataay waxtu yi moo tax duñ ci mën a nekk di ci yaatal waaye xam naa dañuy wàcc foofu suñu kàddu rek jërëjëf sëriñ bi Modou ñoo ngi lay sant baax ci kàddu yi mu mel ne Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal ñoo bokk benn pas-pas wuute gi ñu wuute rek mooy kii ki ki fi jaayanteel da fee fekk kii nag ki fi jaayanteel fekk ko fi waaye mu mel liggéey bi nga xam si moom la Serigne Touba liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liggéey bu mel noonu moom la maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal ba tax képp ku tax maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñoo lay sant baax a baax kon dañuy wëlbati ko ci Serigne Mamour Ndaw Serigne Mamour ginnaaw bi ñu nuyoo ba noppi waaye nag ñu xam bi nga xamee ne Serigne bu mag bi jógee na fi bàyyi fa taawam ba Cheikh Mouhamadul Moustapha taxawaay bi nga xam si ne nii moom la maam Cheikh Ibrahima Fall taxawi ginnaaw Serigne Touba ci ay liggéey yoo xam Serigne Touba santoon na ko mu war ko caa jàppale sëñ bi bisimilah. ci nuyoo kàddu yu am solo yi euh, sëñ Modou Fall yëkkati moom sëñ Amdi Yacine gannaaw buñ nuyoo mbokki julli yi ak mbokki taalib yi ñuy seetaan di leen jaajëfal baax a baax di leen ziar ci bis bu màgg bu tedd bii di bisub alxames euh, bis bu tedd bii nga xam ne tey fii ci Daaru Xuddoos ci mbaar mi nga xamante ne bii baaxoon nañ fee daje di fi waxtaanee ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye lépp loo xam ne dafa aju ci Daaru Xuddoos eh, tey nag ñu euh, jël bis bi jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina sun borom dogal itam njabootuk Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko taxawu ànd ak njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina eh, waa euh, commission bi nga xam ñoo yor bis bi tey eh, ñëw di fi def liggéey bu am solo xam ngeen exposition bu ñu fekk leer na ci li nga xam bind nañ ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootam di ñaan yàlla yàlla na yàgg te sax Euh, xam naa laaj bi nag danaa ci mën a tontu rek ci lu tënku ndax dama koy teg ci waxi Cheikh Ibra moo waxoon ne li ma taxoon a jug mooy wane Sëñ Tuubaa ba ko ñëpp umpalee ñu ne ko waaw loolu defaal def nga ko ak ban mun a jàppale Cheikh Moussa Mbacke fa jàppale jafe taxawaay maam Cheikh Ibrahima Fall ci Cheikh Modou saa dafa leer loolu borom xam-xam yëpp dañ ciy waxtaan ndax Cheikh Ibra seex Cheikh du Faat moom moo ñu wax ne fekke na ñett yoon yoo xam ne Serigne Modou Moussa ñëw na ko ci Cheikh Ibra nee na benn bi ndànd la. bi ci des cees la waaye bu mujj bi nag njaareem la boobu moom ku baax ci dem na waaye rek ñu indi ñaar yi ndax jotaay bi dafa xat keroog bi sëñ mu saa ñëwee ci Cheikh Ibra cees bay Cheikh Modou nee na Cheikh Ibra xëy bis ci suba gi na doom na dem ca gaar ba teertu ma mu Moussa Mbacke mi ngi ci saxaar bi ñëw nee na nag xamuñu ku ko annoncé na sëñ Modou saa ngi ñëw waaye bi mu waxee loolu mag ñi daal di wut naaru góor nee na waajal ko nag ngir jëli Cheikh Moudou Moussa ci raay bi ca gaar ba nee na bi ñu waajalee fas yi ba noppi Cheikh rek génn yam ci ñoom naa doom lu ngeen nar ñu ne ko yaa wax na moo Moudou Moussa ngi ñëw maam seex na moo tax ngeen wut leen naaru góor yu suur yu rafet yi ngeen teg ci doomi sëñ Bàmb mu bajantu daanu waxuma loolu daan na gees na ana mujj joom ngeen bàyyi mujj joom ngeen da maa ngi nii mën a ana Daawda Ngom bàyyi Daawda Ngom da maa ngi nii Cheikh Ibra Fall na ana sama carotte sa carotte mooy li mel ne genre voiture te ñi daan ko war ñu ne ko faal carotte baangi ni nii mën wat den ko indi ñu wat ko mën nañ ko tak ñaar ñi ñu jël carotte sa bay mu joom gene ak bay daaw da ngom Cheikh Rafal na dox leen ba ne gis ñu dox del ci melne fas kay maam Cheikh na waaw leen gor dom bu ngeen deme ca garbu na ci Mourou Moussa Mbacke warte ngeen fek sama fi carotte biñu bi biko seigne Mourou Moussa gis dafa na xana bay Cheikh ibrahim def li ñu na ah de ah melom du soppi ko bu muk ñu ne ah, nga war ci de xolal jëli domi seigne Touba tax nga tak ñaari nit saret di say ñaari donga ci Cheikh ibrahim lañ ko mësa kon lolu moy pas-pas ba xamne motax Cheikh Moussa seigne Touba la doon xol ci mom ndax Cheikh Ibrahima dafa japp na seigne Touba jogewu fi Cheikh Modou Moussa moy seigne Touba lolu wax na ko fallu bi seigne fallu ñewé ndiarim bay Cheikh Modou neena na fekk na ñett yoon yo xamne ñett doomi seigne Touba yi neena amna na bis bo xam ci ndiarim dajé nañ fa dajé wuñ fa waye ñewondo nañ ci bir ci benn bis bi seigne seigne Modou Moussa ñëk ñew ci yor yor seigne basirou julé na fa tàkkusaan sëñ Fallou fanaan na fa yari gudd sëñ Modou Moussa bi mu ñëwee Cheikh Baye Cheikh moo doy wax de nee na Cheikh Ibra dana ko sa baay de dem na na ko ndax wax na la dara mun ne ko waaw nee na de téere yi mu taalifoon ba fi naa ko ko dajaleel. nee na nee na itam jumaa jëm digli woon fa Touba Cheikh Ibra na ko ah waaw wax na dëgg lu lu wëttoon na jof si ndax da ko man mu ne ko waaw daan na ko ah Fall de xanaa soo ma dimbalee mu ne ko ah daañu la dimbali xoola daañu la dimbali. loolu defe naa la dimbali loolo sigel te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek far jekki Moustapha tey sant Serigne Touba di ñaanal Serigne mohammedul muntaha sunu borom guddal fanam te doli ko wer ba limu yene yéene Serigne Touba lepp mo àggale ko te and ko ñu mam Cheikh ibrahim Fall borom moy Serigne Cheikh Fall euh, mam Cheikh ibrahim Fall lim doon peese ci yoonu mouride mooy ku ne xam na ne bi ra nam départ ci Mbàkke Kajoor ba muy joxe boppam Serigne Touba lam ko waxoon loolee Serigne Modou dikk na ak fi nga xam ne foofu la jaar fépp ak Serigne bi mooy li ko Serigne Moussa Ka waxee rek ba muy jébbalu doxin wa nga xam ne moom la indi woon ci yoon wi tamuy doxin woo xam ne ñu bari miinuñu ko woon doxin woowu mujj ñëpp di roy Cheikh Ibrahima doon doxe Cheikh Ibra nag ba mu joxee boppam ci Mbàkke Kajoor nam doon doxe ak sëriñ Baaw Serigne Touba soppikuwul ci la am mooy liggéey jox ko lum ko digal mu def lum ko tere mu bàyyi te loolu mooy njëbbal gi nga xam ne ne mooy doxin woo xam ne moo tax ñu tuddee ko babul muridina ndax ba muy door a ñëw ñu bari xamuñu woon lan mooy ak taalibe waaye ba mu ko jàngalee mujj na ñëpp bëgg a mel ne moom Cheikh Ibra nag mosula soppeeku ca nam doon gëme woon Serigne Touba ba mu nekkeek moom di dund ak moom bi nga xam ne noon ba Serigne Touba jóge na fi 1927 it ñetti at yi mu fi toogaat ginnaawam pas-pasam soppikuwut aw doxinam soppikuwut loolu li koy firndeel wax nañ ne sëriñ Touba bi mu biñ ko noppee gis ci Zahir maam Thierno Ibrahima Fati ñëw na Touba yoon wi mu fi ñëwee. ta dajale mbokk yi dajale taalibe yi dafa am wax jum dénkoon Cheikh Ibra ndax dane ko woon yow Ibrahima Fall bam lëndëmee mu mettee yaa wane woon yoon wi kon nag tey bu ñu noppee gi ci sëñ bi saahir continuel wéyal ca yoon wa nga tekkoon di wane yoon wi di gën a leeral kon loolu mooy sëriñ Moussa Ka wax na ko nee na Cheikh Ibra Fall bi nga xam ne noppi naa gis Serigne Touba Serigne Moussa Ka dafa wax ne mu laddi ngoy ci Moustapha ngir xam ne yor na listifa mag ñëpp dem moom mu ne fa mos la ko yox-yoxi kon bi mu noppee gis Serigne Touba it dafa xam ne na mu toppe woon sëriñ Touba ak na mu ko joxe woon boppam ak lam ko doon liggéeyee lépp ginnaaw Serigne Modou Moustapha ngi fi dafa wëlbati lépp jëmee ko ci Serigne Modou Moustapha ngir xam ne tey moo fi Serigne Touba. nonet fofu bari nañu gëlëmoon bari na xamne xamu ne fuñu tek seen tank waye nam nam defoon ci mbacké kadjur bamuy muy door rek wane yoon léral fi nit ñi wara jaar taalibe wara jaar bañu noppé gi sëriñ bi sahir nonu la wane gëné wan yoon wi xam leen ne gannaaw buñu noppé gi sëriñ bi sahir sëriñ Modou Moussa mat na lépp kon nak nañu joxe woon suñ bop sëriñ bi don ko liggéeyal don ko top bayiwon ko suñ bop non lan wara def ki nga xamne moko moo moy musafar. cheikh mohamadou mustafa lol nak ab jangale la ci yoonu murit wan ne ab talibé sa doomi serigne sa serigne la bul ko jappé ci ay at yu néew bul ko jappé ci ëpp ko daraja wala ëpp mbolo waye na nga japp ne lepp lo yor ginaaw serigne bi la ko defal kon lum bayi, fi danga wara bayi da nga wara bayyi sa lepp top ko jox ko sa lepp ndax moy tax nga jariñu aduna ak àllaaxira kon nag mën nañu wax ni Cheikh Ibra Fall daal wane na yoon ci nekkuk Serigne Touba ba mu neppee noppee gi Serigne Touba wane na yoon yoon woowee nag mooy yoon wi nga xam ne moom la xàll ba bépp taalibe bu bëgg jariñu boo ci jaaree jariñu looloo tax fépp képp ko am Pastef tey ak kër goo mën nekk ak noo mën a sant bu fekkee ne wane nga Pastef wane nga ak taalibe ñu ne mooy Baye Fall bi kon nag wane ne Baye Fall moom mooy Pastef mooy joxe sa bopp mooy topp sëriñ bi jëfe ndigal bàyyi tere loolu la cheikh bi da wane. mooy mbokk yi nga xam si ne moom la ñu àndaloon ngir doon waxtaanee ki nga xam si ne moom lañ dara jàll exposition bi di mu am Cheikh Ibrahima Fall kon ñoo ngi leen di baax di leen gërëm di ñaan suñu morom ñu ak dégg awal topp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo. sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér ko wuy seek say candidat ni wiiw ne yaa wat ña Mustafa